aousubillah min alsheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim alhamdulilahi rabilalamin min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam à travers Wilane Vision fii ci ba Daarul Muhibbin tey ci ziyaara le 13 janvier 2024 ci ziyaara Mawlana Seydi Cheikh Alhaaji Babou Ba ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam waaye di jiital ci nuyo bi ak ci ziyaara bi Seydi wa Mawlaay al Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañu waa faydu bi yëpp waaye nuyoo yooyu ñu teg ko ci loxo alxalifa Khalifa Cheikh Ibrahim Ba xalifatu saaxibil fayda fii ci capitalu Ndukumaan di ba nga xam ne débu ba léegi ñu ngi ci ziyaara bi wala bu yàgg ba léegi ñu ngi sant yàlla di dalal gan yi ñun di ñaan yàlla yàlla indi ñëpp ci jàmm ñu nekk ci yoon bi ñi fekkañ ci jàmm ñu def ko ci jàmm mu jeex ci jàmm waaye euh, di préparer pour waxtaan ak yéen ci à travers Wilane Vision fii ci ziyaara bi ak ngëneelu ziyaara bi lu tax ziyaara bi am ak kat moo ci joxe ndigal ak programme bi ziyaara bi nu muy déroulé ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq incha allahu tabaraka wa taala. sëriñ bi. Hmm. ñu daan dajeeg hmm. wala Medina Baye. Hmm. mën nañu wax ne sax lu ñu xamante ne bi mooy fan. alhamdulilah Cheikh Hadj nag suñ koy waxee rek sa xel dafay dellu dafay daj Maolana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu du moo ko tuddee ba waaye moo ko tuddee Daarul Muhibbin moo ko tuddee nag kay keroog soppe ci yàlla ngodi ba dëkk la ci dëkk Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu yim sampal boppam su mën a waxee yim sampal boppam nag du moo ko du moo ko sanc moom Cheikhul Islam waaye mën nañu wax na sanc baatin bi moom moom la ndax ñi fi nekkoon ba tax ziyaara bi am di Seydi Cheikh Alhaaji Saloum Diané Seydi Cheikh Alhaaji Muaz Ba ak euh, Seydi Cheikh Alhaaji Babou Ba mi nga xam ne moom la ñuy ziyaara Mawlana Cheikh al Islam joxe woon ndigal na nañ ko ziyaara depuis 1957 58 mu yebaloon Seydi Ali Cissé radiyallahu anhu wa arda mu teewal ko moom Mawlana Cheikh al Islam boobu ba léegi dañul ziyaara bu ñëw rek danañ gis xalifa Mawlana Cheikh al yi nga xam ne jiitu woon nañ ak ki fi nekk tey di Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass xataa ñooñ faydu bi ñëpp. ñooñ Ndoukoumane ñëpp ñooñ Sénégal bitim réew yëpp ziara bi dañ danañ leen danañ leen yàgg nañ leen dalal kon ñu ngi ciy xaar gan yi li ko dalee ci Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass boo laajtee ngodi ba ne la ba dëkk la ci dëkk Mawlana Cheikh al Islam yoo xam ne ñoom seen liggéey du dara lu mooy jaamu yàlla waaye ànd ak liggéey naka jekk sax ñaar yooyu rek ñu ànd jaamu yàlla sa digganteeg sa boroom ndax bu ëllëgee nga am loo yóbbul ndax fi jaaruwaay rek la ndax àdduna bi bu fekkoon am na keneen ku fi sax yonent bi sax alayhi wa sallam dana fi sax ànd ak na yonent bi sax deewut fa fus bi ilmin taisu bi abada annaasu mawta wa ahlul ilmi ahyaawu borom xam nit ñëpp ñu génne àdduna borom xam-xam yi ñoom ñi ngi dundoo kon dëkk bii dëkku xam-xam la jàng ak jàngale lañ xam waaye liggéey ak jaamu yàlla Mawlana Cheikh al ñëw na fi juróom-ñaari yoon ci yoo xam ne mën nañ koo note am na ci yoo xam ne ñëw na rek génnaat dam te kenn yëgul ko mu gisee ak Cheikh El ba gisee ak Cheikh El Hadj Mass gisee ak Cheikh El Hadj ak mag ñi fi nekkoon suñu maam El euh, Hadj Ilimaan Njuxuba Ndaw nga xam ne moo nekkoon borom dëkk fii Ngodiba mën nañoo wax na sax ci dëjëm la fi Mawlana Cheikh Lislaam gëjoon ci Zahir 1969. ñu ngi ñaan yàlla maam yooyu nga xam ne ñoo fàkk li yàlla na yàlla yërëm leen te yàlla yaatal seen ginnaaw su ma waxee yaatal seen ginnaaw nag mooy mu dëgëral ko ci xam-xam ci alxuraan ci wilaayeetu ci njub ak ci ragal yàlla ndax Mawlana Cheikh al Islam fépp fu mës a samp rek lim fa samp mooy njub njub goo xam ne dafay sax ndax njub googu la ñaanoon yàlla ca 45 bi muy jaar ngodi ba 46 ci rexla Konaakiri bàyyi naan daawatu rabbi an yauma hadi kullal wara wa yahmaduna saa yi maa ngi ñaan yàlla man Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima njub gi yàlla yenkewal ma ci sama baay laa ko amee ci Cheikhu ko amee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa wala yàlla ma ko jox direct mu jaar ci ñooño maa ngi ñaan njub googu yàlla na tasaaroo fépp njub googu nag téere boobu bu barke boobu wala tukki moomu Mawlana Cheikh al-Islam ñaanoon ko ci tukki moomu la jaaree ngodi ba waxoon na jaawasu kafrina jitu ngodi ba daaral muhibbin al kiramil udaba maa ngi dugg sama dëkk soppe dëkk bii nga xam ne mooy ngodi ba mooy daaral muhibbina Oustaz Barham Diop bu koy firi def naan daaral muhibbina kay rek soppe ci yàlla alkiram mu ne ma fekk ñi nekk ay nit ñu tedd baatu kiram nag baat bu rëy la boo xam ne baat bu riis la loo bëri bari bari xarit boo xam ne dafa dañoo mën a def teranga tur boo leen mën a tuddee ci turu asmaaullahi alxusna yi boobu mën nañ mën nañ koo nangu ba mu des karim ndax karim moom duñ ko tuddee lu dul ko gëm yàlla kon Baye mi nga xam ne baat yooyu mu ngi koy jël di ko di ko di ko di ko dugal ci woy bi dëgg-dëgg xam na moom ñan lay waxal ndax moom moo leen defar te defaru maam alaaji Abdoulaye loolu dafa ñëw mottali lépp ndax Cheikh alaaji Saloum Diané Cheikh alaaji Mass ba mi ñuy wax bàyyi Cheikh alaaji Baawo ba maam alaaji Abdoulaye ko jàngal alxuraan ci bi mu am juróom-ñetti at la ñëw ci loxoom maam alaaji Abdoulaye ko jàngal xam-xam waaye moo ko tajdiid moo ko beesal wala moo ko jox tariqa tijaan gannaaw loolu ti moo ko jox lijaasa bi nga xam ne te maam alaaji Abdoulaye ñi mën a waree lijaasam bëriwul lijaasa bi boo demee ci sëriñ bi Cheikh ba léegi mu wan la ko lijaasa bi ñu amoon ci maam alaaji Abdoulaye am na téeméeri at ak nangam Cheikh El Hadj Baba mi ñuy ziyaara nag 1924 euh, la juddu woon bu fekkee atam verre la kon mën nañoo wax ne ci 2024 bi la am téeméeri at kon ziyaara bi ren dafa am leneen lu ci sosu loo xam ne téeméeri at yu nekk rek yàlla am na lu mu maye. mu ñëw nag ba ci Cheikh Ibrahim ba mi nga xam ne tey moo yenu yen bi te nangu ko lool ndax nit da nga ko yen yen te fekk du ko nangu wala bu ko yenoo tim nu ko neex la koy yenoo kon na ci lu bari. te maam El Hadj daan na wax naan doom ñetti doom la doom ju baax doom ju gën ak doom ju yées doom ju baax mooy ko xam ne lépp lu baayam defoon ñëw na daf ko waaye fa la doom ju gën nag mooy lépp lu baayam defoon ci mbaax ak ci teranga daf na ko waaye yokku na ci leneen doom ju yées nag ñëpp xam nañ ko mooy lépp lu baayam tabaxoon bi mu ñëwee daf koo mabbu kon Cheikh Ibrahim Ba ñëpp xam nañ na ci doom yi gën la bokk mokkal na alquran am na xam ba pare attekat la ci sharia ndax sharia wal xaanuun la jàng moo de mooy atte fii ci tribunalu kafrin ci wàllu sharia beneen bi ci ñi jiit aj gi fukki at ak nangam ci la bokk beneen bi ku ne xam na ko ci diplomate Sénégal yi ci la bokk bu yàggu rek gouverneur monsieur euh, euh, Boye Amar El Hadji Boye Amar wax na ko nee na Cheikh Ibrahim Ba dëgg-dëgg neexul ba neexul mais conseiller la ci état maanaam état bu ñu ko doon déglu duñ juum. loolu nag boo amee dara lu muy tegtale mooy dafa jàng dafa xam dafa yaru waaye dafa xam lu muy jëflanteeg doomu aadama yi ndax mu ne bi mu jàngee ba ñëw indi ay diplôme Cheikh Alaaji Baaw ba na ko diplôme ban nga am mu wax yi mu am yëpp Cheikh Alaaji Baaw na ko des na beneen diplôme mu ne mu foog na sax dañ koy yóbbu pour mu jàngewaat mu ne ko des na diplôme bi ngay jëflanteeg doomu aadama yi kon loo bari bëri xam-xam loo bëri bëri bëri wërsëg da ngay xam ni ngay jëflanteeg doomu aadama yi te loolu yaa ngi koy jaaree ci buntu yar ak teg teggin ndax moom la Mawlana Cheikh al Islam waxoon ne taaddubun fi zahiri wa batini bihi yuraqal maru lil mawatini ñooñ ngodi ba moom ñooñ daarul muhibbina te suma ko waxee mooy fépp fu toppam nekk ci àdduna bi xamee nañ leen yar ak teggin yar ak teggin nag moo mën a maye lépp ndax yonentu yàlla Ibrahim bu gisaan xale di sukk ci suuf mbaa mu koy màggal nga yaakaar ne xale bi lay màggal fekk moom jëmmi yàlla ji lay màggal maanaam mu ngi jàkkaarloog pee bi ndax pee bi mosu ko mosu mosu koo fàddu kon bàyyi nee yow mi nga xam ne yaa soobu pour ut loo mën a ut ci àdduna yàlla ngay utam àdduna ngay ut àdduna sa boo koy mi ngi ci biir yàlla dara génnul yàlla bàyyi mu ne kon fal adabal adaba yaa sa saalik fa innahu baabu li saalik yow mi soobu loo mën a uti rek mu ne na nga fexe ba xam ne pour nga mën a réussir pour nga mën a yegg rek jëlal fas naaru góor wi ñuy wax yar ak teggin nga war ko ndax mu mën laa yegg la jox la sa càkkuteef yi nga xam ne moom nga bëgg te boo rafetalee amee yar ak teggin rafetal jëmale ci doomu aadama yi rek te mooy fexe ba rafetal sa diggante sa borom waaye rafetal sa diggante ak doomu aadama yi soo ko defee rek bàyyi mu ne am nga sama dayob ngërmaande kat bi imaamu Shafii radiyallahu anhu nee na ahsin ila nnaasi tastaabid qulubuhum rafetalal jëmale ci mboolem jaamu yàlla yi su ko defee rek mu ne nga jaamuloo xol yi kon loolu lañ xamee melokaan daarul muhibbin ñu ngi ñaan yàlla ku mel ni xalifa bi mu ñëw ci jàmm ak mboolem ñoñ Madina nag fu waay du jógee ci autorité yeeg ñëpp ñi ñëw ci jàmm ñi def ko ci jàmm mu jeex ci jàmm yàlla bu kenn am benn ndog ci yoon bi yàlla na yàlla faj mboolem aajo yi ci zahir ak ci baatin yàlla fi yàlla yàggal Cheikh Ibrahim Ba yàggal fa naatiqu rasmi Cheikh Alaaji Souleymane Ba suñu waajur waaye yàggal fi mboolem mbooleem kàngami daarul muhibbini ci réew mi ak ci bitim réew mu xaddam yi ci nekk taalibe xulafaaw yëpp di ñaan yàlla yàlla dotti ay milliards am daf ko ci dëkk bi daf ko ci réew mi ñi ngi dërmal li nga xam ne tamit mooy élection yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm di ñaan yàlla ñëpp voté si jàmm ñu def ko ci jàmm mu jeex ci jàmm yàlla tànnal ñi ki gën ndax jamono bu nekk booy ñaan yàlla moo am na lu gën bàyyi daan na ko ñaan xirli yow saxban fudala wa xirli min kulli shay'in xayru wa kun lii kon am nañ droit ñaan yàlla Sénégal ki fi yàlla di teg mu nekk koo xam ne yàlla koy tànnal boppam ànd ak nag tànn kenn mënta tànn sax yàlla rekk ay tànn waaye yàlla nañu yàlla tànnal koo xam ne dana dëppoog senegal dana bëgg senegal senegal dana ko bëgg waaye Sénégal tamit dana dëppoog moom loolu mooy liñ bëggoon a sànni ci kàddu yi di ñaan yàlla yàlla yeggali ziyaara bi ci jàmm ñu ngi xaar nu ñu ko waxee léegi Cheikh Mouhamadul Mahi ci cérémonie officielle bi ak guddi gi ak kàddu xalifa bi nga xam ne buñ demee ba fajar moom Cheikh Ibrahim ba message yooyu nga xam ne dëgg-dëgg bu ko waxee ba pare rek dafay jar sax ñuy bind ko benn baat bu ci nekk ci or ngir njëriñ bi mu am te benn dellu maanaam du ci dellu ci moom lu may dafay digle lu baax di tere luñ sib ndax loolu la yàlla teg yoon xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar wa billah ñi ngi gërëm yoon Wilane Vision ak équipe am yëpp di ñaan yàlla yàlla dafa leen tawfiq yombale leen seen jumtukaay jox leen matériel yu doy yoo xam ne fu waay tollati rek dana mën a seetaan seen euh, lii nga xam ne mooy seen communication yi fi ngeen di jaaree am ngeen ci cër bu law yonent bi sallallahu daan na wax ne balligu anni walaw jotalal leen ma sama message yi ma yàlla yónni donte benn mot la wala donte benn texte la bi ci gën a gaaw ren fii nag ñu toll tey si jamono bi mooy lu mel ni Wilane Vision ak yu mel ni moom ñu ñaan yàlla yàlla yombal na seen i matériel yàlla may leen kattan bu ngeen liggéeyee may leen mahabbatu may leen wërsëg may leen ay waruwaay yoo xam ne fu leen nit ñi soxlaa rek fu leen bi soxlaa rek fu leen l'islam soxlaa rek ngeen mën a déplacé wu dem di ñaan yàlla yàlla dafa leen tawfiix waxtu wu ngeen jugee di déplacé dam